asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum waa diaspora bi mbàyyi na ngi am tawféex mbàyyi na ngi si jàmm en tout cas man maa ngi kóolu bu baax maa ngi carré <laughs> comme ni ko sama gars yi di waxee euh, gars yi tey dama ñëw indil leen ñaari actualité yoo xam ne mu ngi daw ah. peut-être nag nekk ñu ay actualité yu grandiose parce que Sénégal comme ni nga ko waxee bu dee xam-xam la day metti tuuti gars yi concentré wu ci mais man toujours damay njàngat si loolu pour mën a partager ak yéen yenn idées yi wax nañ ko mu nekk ay benn benn combat bu noble ah mu nekk benn affaire boo xam ne toujours ñu ñëpp je crois que ne comme ni mu ko waxee quatre vingt dix neuf virgule quatre vingt tegu ñoom ñëpp nangu nañu ni ñun sénégalais yi wax dëgg fa yàlla bëgguñu li nga xam ni moom moo di góor jigéen kon criminalisation bi dafa war a nekk loo xam ni c'est c'est sur papier dañ ko war a defar quoi même bu fekkee dañ koy mise à jour ñu mise à jour ko pour ñun ñëpp suñu sénégalais su suñu xel dal quoi en loolu mooy. li nga xam ni euh, je crois que ni moom moo waraloon émission boobu nga xam def nañ ko ca Walfadjri bi ñu invité woon kenn koo xam ñu ngi koy woowee Abdou Karim Gueye ak Tata Ndella Madior mu nekk ñaar nit ñoo xam ne man personnellement je les respecte wax dëgg fa yàlla ak nu mu mënti demee parce que nekk na nit ñoo xam ne saa ñu toogee lu mu tuut tuuti maanaam dinañ génnee li nga xam ne moom moo di xam-xam ci émission yi nga xam ne moom lañ leen di invité te dañuy am ay combats yu noble yoo xam ni dañ koy mëne kii si côté li nga xam ne moom moo di féminisme bi nga xam ne man moom laa àndal des fois nag mu déborder fàtte ni carrément Sénégal la nekk kee nag mu nekk si li nga xam ni moom moo ni wàllu sàmm jikko yi euh, ak diine bi conservé ko ko bon si seen émission nag da ngay dégg euh, li nga xam ni moom moo di ay paroles yoo xam ni c'est un peu erroné yu jar a jubbanti la parce que man je me toujours que tey jii booy xeex ak benn askan wala booy xeex ak benn pays wala booy xeex ak benn association ak lu mu mënti noonu lépp looy xeex rek nga am ñetti affaires yi. première chose mooy sa stratégie sa stratégie mooy teg benn stratégie boo xam ne ñooñu mënuñu ko contre débat wala mënuñu ko yàq deuxième bi mooy jàng li nga xam ni moom moo di sa adversaire mooy xam seen stratégie xam seen idéologie xam lan moo tax ñu ñëw bëgg sumb wala bëgg geer ak yow troisième bi mooy nga def tout pour gagner ko loolu mooy li nga xam moom moo di trois nit lépp trois affaires yi nga xam ne nit ki buy dem di combattre loolu la war a am tey jii benn affaire bu gaawaan LGBT gars yi bëri je crois que ni comprendre ñu lan mooy idéologie LGBT idéologie LGBT du lenn lu dul semer li nga xam ne moom moo di la confusion mooy teg si bopp nit ñi ñaaw njort su ma nee ñaaw njort mooy jiixi jaaxa laaj ndax lii wala laa en fait mettre en cause yenn affaire yi nga xam ne nature bi daf ko teg mettre en cause li nga xam ne moom moo di sociale bi daf ko teg mettre en cause li nga xam ne moom moo di religion yi dañ ko teg culture la boo xam ni c'est séparé mu dajale benn culture yëpp niroo si seen anam ñoom lépp loo xam ni moom moo di religion ñu créer benn sorte de religion boo xam ne day contre yeneen religion yi loolu mooy li nga xam ni moom moo di LGBT beneen affaire bi nga xam ne moom la ñu am mooy maanaam comme ni ma waxee sànq booy dem di strat ngay xam bu baax lan mooy définition yi te si définition yi nga xam ne gars yi wax nañ ko ñetti définition yi benn bi sax moo gën a nekk loo xam ne jege na dëgg mais malheureusement mise à jour yi gars yi duñ ci bàyyi de ce ñu commencé si premier bi premier bi mooy maa ngi dégg ki nga xam ni moom moo di Tata Ndella Madior muy expliquer li nga xam ni moom moo di homosexuel la homosexualité déjà il faut ngeen comprendre homosexualité parole bi fan la jóge maanaam ñu bëri nag xëy na xam xam nañ ko mais ñu bëri xamuñu ko loolu il faut nga jàng wala nga nekk curieux pour nga xam ko parce que du école sénégalais yi ñoom ñoo koy jàngal li nga xam ni moom moo di homo mooy maanaam lépp loo xam ni dafa niroo maanaam si latin grec lépp loo xam ni dafa niroo mooy homo moo tax ngay dégg ñu ne la euh, exemple boo amee ay doomi seex ay seex ñaari yu bu fekkee ne xale yi dañu bokk si même mbuus mooy mbuus bi nga xam ne moom mooy nekk si biiru yaay su boobaa dañuy niroo léegi ñoom ñaar bu ñu bu ñu nekkee asan asan yu niroo ba doo leen loolu la ñuy li nga xam ni moom moo di homozygote léegi bu fekkee ne xale yi dañoo juddu si ne wala dañoo nekk si biir boo xam ni ñaari saak yi dañoo séparé wu dalee leen cheikh yi buñ juddooyee duñ niroo loolu la ñuy woowee hétérozygote loolu loolu noonu nag moom mooy li nga xam ni moom moo di homo homo mooy lu niroo kon tey jii ni homosexuel mooy nit ki nga xam ni dafay bëgg sexe ki nga xam ni moom la nirool mooy maanaam koo xam ni égalam la mooy maanaam benn góor mu li nga xam ni moo di moroomu góoram wala benn jigéen mu bëgg xam ni moom moo di moroomu jigéenam kon tey jii ni Tata Ndella Madior boo jëlee li nga xam ni moom moo di homosexuel nga jox ko góor ba pare ne loolu góor yi ñoo ko moom beneen bi moo di lesbienne benn affaire la boo xam ni définition bu erronée la te il faut faire très attention si définition yooyu noonu parce que li nga xam ni moom la LGBT bëgg mooy créer confusion ba nit ñi duñu xam léegi déjà loolu rek mën na créer confusion parce que benn réponse bu erronée la beneen mot bi nga xam ni moom laa bëggoon leeral mooy transvesti mu nekk benn affaire boo xam ni il faut gars yi bàyyi xel bu baax si li ñuy wax gis nga transvesti dafa am ñaari façon transvesti benn bi moo nekk si loge LGBT mooy ñi ñuy woowee les drag queen drag queen mooy benn góor yàlla boo xam ni moom góor la am na jabaram am na doomam am na dundam am na statu genre masculin su subaa day def li nga xam ni moom moo di rolu góor doxantu reetaan ànd ak ay xaritam fubali lépp bu guddee dafay am préférence toujours di solu solu jigéen di maquillé wu xam nga di rosaawu njëkk ba nag gars yi dañ ko doon def pour des cabarets ñooñu la ñuy woowee les drag queen pour def li nga xam ni moom moo di spectacle mooy li jigéen yi di def mais góor moo koy def loolu mooy li nga xam moom moo di transvesti te ñooñu waa LGBT dañ leen reconnaître léegi nag beneen transvesti bi ne attention boobu dafay dépendre si li nga xam ni moom moo di culture exemple wala mu nekk benn affaire boo xam ni côté artistique la exemple laa leen di jox tey jii nii benn Kouthia mi nga xam ne artiste la comédien la. bu soloo ni Mimi Touré di ko toppandoo si benn Kouthia Show ça veut pas dire que ni dafa efféminé déjà benn parole la boo xam ni dafa erroné benn transvesti ça veut pas dire par force day efféminé ça veut pas dire que ni dafa efféminé no mais dafay def li nga xam ni moom moo di rôle dafa nekk di tooñ benn nit benn humour mu utiliser mu ture pour le rendre plus réel mu sol li nga xam ni moom moo di yére góor yére jigéen benn xam na xale yu bëri yoo xam ne dañuy TikTok am na humoriste yu bëri yoo xam ne da leen di gis ñuy utiliser affaire boobu noonu ba ci bi gën a garaaw mooy mardi gras bi nga xam ne dañ koy jox suñu doom yi da gis ay xale yu ndaw yu jigéen di solo comme ay góor di sol ay caay di sol ay ay ay ay ay ay yére olof mooy yu góor yi di sol ay maki ay maki la ñuy sol nga gis li nga xam ne moom moo di jigéen yi di sol góor yi di sol li nga xam ne moom moo di yére jigéen ma joxal leen beneen culture beneen culture bi mooy Simba Gaynde Sénégal da ngay gis ay góor yàlla tigi mu lay leen ne ay góor yàlla dëgg lañu mais vu que ni gaynde bi dafay am ay jabar ñu solo comme jigéen pour fecc parce que c'était juste du spectacle mais après ku si nekk da ngay doxantu normal comme góor wala nga dund dundu góor amul dara loo xam ni da nga am benn préférence sexuelle à travers beneen nit wala da nga bëgg a mel ni jigéen moo tax des transvesti dafa nekk benn affaire boo xam ni dafa large ba nga xam ni tey jii nii balaa moo duggoon si affaire de LGBT ça c'est problème parce que benn affaire rek lañ si reconnaître mooy li nga xam ni moom moo di les drag queen kon trans transvesti ça veut pas dire par force ni da nga bëgg a nekk jigéen transvesti ça veut pas dire que ni drag queen rek nga transvesti ça veut pas dire que ni yow tey jii da nga efféminé maanaam ñetti affaire yooyu noonu ñoo ko boole loolu moo indi woon moo yóbboon Bougar Sarr si benn erreur ba mu foog ni Sénégal ñu bëri dañuy nekk ay góor jigéen wala dañu bokk si li nga xam moom moo di affaire LGBT si li nga xam ne moom moo di troisième définition bi muy hermaphrodite vraiment ni ko Tata la waxee noonu la hermaphrodite c'est une maladie tout d'abord bokkul ak benn affaire boo xam ni choix la parce que nekk trans nekk gay nekk lesbienne nekk loolu noonu yëpp nga xam ne loolu choix la nit ki moo ko choisir par lan psychologiquement parlant xam nga dafa am ay déception dafa am euh, benn genre maltrat maltraitement bu ñu ko def si physique am wala genre yoonu parce que ñooñu à la fin mooy ñi nga xam ne moom moo di la communauté des rejetés la majeure partie boo xoolee soit mu nekk nit koo xam ne day day am yaram si tubaab yi soit mu nekk nit koo xam ni dafa doon dafa am déception amoureux su amoureuse soit mu nekk nit koo xam ne whatever moom mooy tax mu dem nekk gay wala lesbienne wala soit koo xam ne dafay judd si benn famille boo xam ni dañuy gis papa ji di dóor yaay ji mu bañ góor wala nga gis koo xam ne yaay ji da doon dafa rey papa ji mu bañ jigéen xam nga yaa ma gën a xam jàpp ñëpp jigéen loolu la ñu wooye benn maladie la mais bokkul ak maladie bi nga xam ni yàlla moom moo la ko judduwaale comme benn hermaphrodite mais maladie la xam ne peut-être da lay dabi mais man je crois que ni choix la jusqu'à présent bii nag tandis que bii moo wax dëgg fa yàlla maladie la yàlla moo la ko teg léegi hermaphrodite bu njëkk ba ni ñu ko doon fajee moo maanaam bu juddoo xale bu juddoo dañuy xool taux bi nga xam ni moom moo gën a yëg bu fekkee jigéen yi hormone bi moo ëpp li nga xam ni moom moo di euh, ni ñu koy wax de stéréotype bu góor bi dañ koy def jigéen parce que foofu noonu bee féminine bi moo dominé côté côté féminin bi moo dominé bu fekkee nag beneen côté bi la côté masculin bu dominé maanaam góor lañ koy def loolu bu njëkk ba à travers docteurs yi ak seen famille noonu lañ ko daan defee mais au fur et à mesure ñu dem mise à jour di dem LGBT boole hermaphrodite aussi si li nga xam ni moom moo di euh, euh, association boobu mooy euh, kiwam boobu noonu structure am boobu noonu mu ne léegi tey jii nii bépp xale bu juddu. maanaam hermaphrodite am na droit baay ba màgg pour mu mën a comprendre ndax góor la bëgg a nekk wala jigéen la bëgg a nekk loolu mooy li nga xam moom moo de créer confusion léegi nag loolu nag bu màggee xale bu jigéen même bu fekkee taux de masculinité bi moo ëpp mais xale bi sentir bëgg a nekk jigéen day nekk jigéen en fait du ñu xool ndax lii moo ëpp wala lii moo ëpp wala yaram bi après mën na am benn modification wala hormones yi dina génn wala genre day choisir quoi mën na nekk benn xale boo xam day choisir nekk góor di comporter comme góor mais malheureusement hormones yi mooy ëpp doole c'est naturel ween yi commencé génn lan lay def mu dem opérer ko wala mu changer ko pour mu gën a mën a nekk li nga xam ni moom moo di góor bu nekkee aussi tamit le contraire noonu lay demee quoi. loolu mooy li nga xam ni loolu laa bëggoon préciser si nga xam moom moo di émission bi à part lépp RAS lépp nice continuons de soutenir ñi nga xam ni dañu bëgg teg li nga xam ni moom moo di euh, criminalisation góor jigéen mais tamit gars yi question. ta ngi wax rek mais jusqu'à présent yéen a ngi wax loo xam ne des fois da ngeen di conduire les personnes à en erreur quoi te loolu il faut ngeen koy moytu transgenre moom mooy différence su transsexuel lan moo leen di différence transgenre mooy koo xam ni dafa changer totalement sexe mooy maanaam mu jugee ci góor dem nekk carrément jigéen def ay opération yokku awra changer awra yi mu yoroon wala mu jugee ci jigéen dem nekk góor changer totalement li nga xam ni moom moo di awraam tandis que benn transsexuel kooku moom mën na sax téye li nga xam ni moom moo di awra bi nekk ci suuf si kaw rek lay changer. te d'habitude transsexuel yi ñu koy gën a def mooy ab benn góor dem nekk li nga xam ni moom moo di benn jigéen mais awra góor bi da koy bàyyi foofu noonu li si kaw rek lay changer parce que dafay bëgg utiliser ñaar yëpp loolu mooy li nga xam moom moo di transsexuel j'espère que nag affaire yi clair na y a beaucoup de définition yoo xam yoo xam ne bu ñuy toog télé bu leen joxee micro ngeen koy wax def leen de telle sorte que li ngeen di wax mu doon lu clair li ngeen di wax mu doon lu net parce que Sénégal ñun dañuy généraliser rek or que pour nga mën a xeex ak nit ki wala pour nga comprendre nit ki pour nga mën a débattre ak ñooñu ñoom il faut nga xam li nga xam ni moom mooy définition yi comme Cheikh Omar Diagne ni mu koy defee. beneen sujet bi mooy ki nga xam ni moom moo di euh, rapidement laa koy def ki nga xam ni moom moo di euh, xale bu jigéen boobu ñuy woowee Big Mama Big Mama. selon li nga xam ni moom moo di histoire am moom si boppam moo ko raconté ñëw na toog ne dafa nekk di def commerce di def ay business am mais malheureusement dafa am ab samba boy wala ay samba boy yoo xam ne dañuy jël li nga xam ni moom moo di photom ak numéro bi nga xam ni moom lañu def ñu associé ko comme si que ni moom prostitué la ku soxla am bànneex mën nga dem ci moom affaire bi metti na ko mu def li nga xam ni moom moo di sorti ñaawlu ko et la majeure partie ànd nañu moom même man mii sax ànd naa moom si acte boobu noonu nga xam ni recevoir na ko victime la si li nga xam ni moom moo loolu harcèlement am na ci y a beaucoup de choses yoo xam ni góor yi tamit ñu ngi koy def maanaam pervers yi na biir Sénégal et loolu moo xam naa ne du Sénégal rek mondialement y a des yoo xam ne bu ñu yeewoo li ñuy njëkk xalaat mooy affaire de perversion quoi te perversion boobu noonu dara indiru ko mooy li nga xam ni moom la ñuy wax ni Sénégal société bi noonu la mel de ce nag man fi may wax ak euh, Big mooy. en tant que frère comme gars yi léegi neen nañuy conseil gis nga Big Mama àdduna bi y a beaucoup d'ignorants dafa am nit ñoo xam ne ay ignorants lañu nit ñoo xam ne ils cherchent pas de midi à 14 heures nit ñoo xam ne dañuy teel a gëm benn affaire tey jii imagine kooku def na yëfu mbaamam def na yëfu bonam ñëw na pour yàqal la ñëw na pour sànq la mu jox ko beneen nit beneen nit ak nu mu mënti demee at lu mu ignorant ignorant ak lu mu xamul xamul bu xoolee li nga xam ni moom moo di photo bi nga xam ni moom lañ ko présenté mu gis xale bu jigéen bi muy comporté woo d'une certaine manière muy photo woo d'une certaine manière muy coloo d'une certaine manière automatiquement gaan boobu day foog ni ah kii de lu mu def nii dëgg la et c'est normal tey jii nii dëgg la mën nañ leen blâmer ci affaire de perversion ak jëf ju bon yi nga xam ñu lay woo naan dañu soxla benn guddi wala dañu soxla benn plaisir mais tamit mënoo li nga xam ni moom moo di pensée bi comme ni ñu waxee rek l'habit ne fait pas le moine mais des fois aussi tamit l'habit mën na conduire nit mu yaakaar ni yow yaay moine bi quoi de ce fait tey jii nii boo leen di solo nga yow nga ne da nekk business woman da nga nekk di nekk si yenn ak il faut ngeen comprendre lan mooy professionnalisme tey jii nii pour ne pas gàttee li nga xam ne moom mooy di say business il faut nga am benn comportement bu noble boo xam ne moom ngay def te je te jure que ni solo ngeen di solo photo yi ngeen di photo wane si ni am ngeen taak wala am war a am ngeen wang wala am ngeen ni ween wala genre wax dëgg fa yàlla mënu leen mëne benn côté bu dul nit ñi di leen xoolee ñoo xam ni promotion kanante wala jaar seen kaw raay raay jéegi mënul nekk loolu rek lañ leen di xoolee mënuñu leen xoolee une femme intelligente mënuñu leen xoolee une femme superbe mënuñu leen xam une xool de bu fekkee tubaab yi ñoo nekk di xeex loolu te mënul ne gars yi ba léegi ñu leen di xoolee noonu sàqamtuma laa ñun sénégalais yi nga xam ni en fait dañu nekk ñoo xam ni buñ nee lii la rek lii la kon de ce fait pour pouvoir combattre ça première chose boo jotee affaire boobu la première chose bi nga waroon def mooy dem porter plainte mu yem fa jaruloon ngay ñëw wax ko sénégalais yépp benn mun nga ko wax porter ko plainte justice am na yoon cybercriminalité mu ngi ci képp ko def mu métti métti dinañ ko jàpp dinañ ko yóbbu li nga xam moomu di prison te dina fay li nga xam ne moom la war a fay deuxième chose mooy nga moytu colin bi nga xam ne moom ngay colu wala bëgg buzz bi nga xam ne moom ngeen bëgg wala bëgg attention bu ëpp ba nga xam ne da leen di jaral def leen neex tey jii nii ne ñoom ñooy def nii la majeure partie duñ leen condamné mais pas à 100 pour cent parce que yow mii tamit boo xam ne def nga ko ci mooy colin bi nga xam ne moom nga col ba nit ñi foog ni bu mu la loolu déjà da ngeen si war a bàyyi xel conséquences yi nga xam ni mën na ko jur en tout cas information yi nga xam ni moom laa leen bëggoon indil j'espère que ni waxtaan bi am na solo lool lool xam naa ne view yi du bëri xam naa ne kenn du ko seetaan parce que Sénégal moo mel noonu bu xam-xam ñëwee coono la pour nit ñi mën ko encaisser su doon waxi taat la ñëpp ñëw ne fàng di ko seetaan mais malheureusement lii mooy Sénégal duñu dañuy wax gars yi ñuy wax si li nga xam ne moom mooy am solo mais <laughs> duñu duñu dem li nga xam ne moom moo am solo mais malheureusement lii la en na cas gars yi lii moo xewoon ci li nga xam ne moom moo di vidéo bi lii moo fi nekkoon lii moo fi amoon King West la woon ak yéen wasalaam diggante ku siisu mën nangu gelam solo wuñu clash bu nekk ci seeni kanam wu jële ñuy def ku fégal sa morom eh. dama war sos di noos di bos bu toog ci foos sol koos yor di mbaas sa MC maa koy bëw da mel ni rappeur a tële mu mel ni ndiga fépp la mëne bari dolli fii ba fële seeni tadi nu ma neex laay tële